alhamdulilahi walsalaatu walsalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa saxbihi wa man wala mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi ànd ko ak sëriñ Moustapha Jatara fii ci daaray kaamil di daaray cheikhul xadim radiallahu taala anhu ngir jéem a jëfe ndigal loolu bàyyi ko ci moom te bàyyi ko ci xalif général des mourides ci njàng ak jàngale al na yàggal ko te wéral ko muy jàngale alxuraan ak di saytu xam-xam bi aju ci moom ngir gën a mën a rafetal am njàngam ñu ngi war a jël nag ñaareelu muqaddima bi dañuy def ñaareelu muqaddima bala noo àgg ci jëmmi téere bi ci boppam muy laltaay ñaareel muqaddima bi mooy tànn nag maqra'u naafi maqra'u naafi nag ñu war a dem nag kan mooy naafi ak luy maqra'u naafi xam naa détail yamu laaj pour xam maqra'u naafi il faut ñu jàng ci biir téere bi lañ koy xamee waaye day baax rek ñu xam ni juróom-ñaar ñooñu ma la nettali kenn ku ci ne dafa am ñaari taalibe taalibe ya dañuy jële ca seeni sëriñ lu ca gën a bari dañuy jële ci kaneen mu jële ca sëriñ ba ñu bari ci ñi ma wax wax naa la ibnu kasir xunbul ak bazzi dañoo jële ci kenn kenn ka jox xunbul ibnu bazzi xamza xalaf ak xalaat xamza ak xalaf ak xalaat dañoo jële ci kenn mooy suleymu nim ko ni ko Shaatibi di waxe rawaa xalafun anhu wa xallaadun alladi rawaahu sulaymun mutqanan wa muhassala xalaf ak xalaat danoo jëlee ci sulaymu sulaymu jële ci Hamza damay joxe misaal ca loolu amma nag Naafi ñaar ñi jële ci moom dañoo taqook moom mu yar leen muy benn maziya min mazaya maqra wala riwaayatu warsh bi ñuy jàng seen imaam da leen a yar tarbiya leen kenn ka sax di xaaluun jiite na ci jumaay Medina ji ñu xam jumaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn fukki at juróom benn fukki at laa la wax wax keneen ki nga xam ne ñun xam nañ ko mi ngi gàddaay cent cinquante cinq hijriya comme ni Ibnu Qaasim dafe woon noonu jëli xam-xamu Maalik ci wàllu fiq moom mu dem jëli ci Naafi xam-xamu qiraa mooy warsh kon li ngay njëkk a jàng loolu te charte bi andi na ko daf ni wa wa qaaluun isa summa uthmaanu warshuhum bi soxbatihi soxba bi soxbatihi almajda alrafiata althala ba mu tuddee naafi daf ni wa ama alkarimu sirri fi tibi naafiun fa zaaka alladi ixtaara almadinata manzila doog tudd ñaari raawim yooyu kon xam naafi mi nga xam ni mooy imaamu suñu imaam mënta ñàkk naafi abu ruaym la tudd lañ koy dàkkantale abu ruaym danañ ko dàkkantale abdurahman abu abdurahman abu abu abu waaye abu ruaym mooy dàkkat dàkkantalam bi gën a siiw waaye moom Naafi nit ku ñuul la woon moom jaawa na jaawa na pour nga bañ a wax jaawu na xalifi Hamzat ibn Abdul Muttalib kon kaana min al mawaali lan mooy mawaali arab yi dañoo amoon ay ay ay ay ay ay ay tabaxaat maanaam dañoo amoon ay ay ay secte ñi gën a kawe classe ñi gën a kawe ñi topp ci ñi topp ci am lu ñuy tudd sang yi nga xam ne ñooy waa Quraysh muhajirun ansaar na ngeen leen xame am ñeneen ñu ñëw ñoo xam ne du ñu sax ay jaam du ñu ay arab mais ay tuubeen lañu yoo xam ne dañoo bëggoon a nekk ci keppaa ñu leen di tudd ca famille boobu kon Naafi ci mawaali yooyu la bokkoon ndax lislaam dafa rafetaloon ba ñañ jàppoon jaam ak ña amoon kii ak ñu dugal leen tudda leen mawaali pour rafetal defin wa mooy diw de eh, mbokkum xet sàngam la kon Naafi noonu la demee woon waaye Medina la nekkoon Medina go mu nekkoon daa am lu muy firi ndax dafa nekkoon dëkku imaam Malik mu jamonoon teel ak imaamu Malik radiallahu taala anhum imaam Malik nag ci gox yi mu tasaaroo ci gox yi mazhabam tasaaroo yépp qiraatu naafi dafa ndax dafa am nag lënkaloo gu doxoon seen diggante gi jëkk ci lënkaloo mooy naafi taalibeb imaam Malik la woon ci mazhabam Malik taalibeb naafi la woon ci alquran est-ce que ñun loolu xam nañ ko Sénégal Sénégal moom da ngay nekk taal baa nga nekk waaw doo nekk taalibe doo nekk sëriñ ñoom nag li waral loolu loolu dañ cay jànge mooy fonk bu ñu fonk taxasus Malik nee na attanul di ubbee ci alxuraan amul ijaaza ndax ijaaza kat mooy mu wóor la ni lii ngay wax la wax la yonent bi daan wax ñun wóor gi mu wóor suñu alxuraan yëpp rafet njort dong la waaye du wóor bi kan moo ko man ci ñun amul ijaaza mënoo loolu léegi nag moom dañu dafa bëgg am ijaaza mooy am sëriñ moom Malick sëriñ boo waaw fi mu toll nag fi mu toll nag wërta toll nag wërta wax waxantu mais kon mu ñëw ci naafiq jàng ci naafiq def boppam taalibe muy jàng naafi di dégg naafi di jàng muy dégg ba mu ne ko nii ngay jànge ni la yonent bi salaa salaam daan jànge Malik di jàng ci njàngam naafi téere bi ñuy jàng ci kanam xaw na nag am aw werante wu am ci baat bi Malik wax Malik nii qiraatu naafiin sunna lu wér te wóor comme moom day certifié parce que Malik liggéeyam moo doon setal ndonal yonent bi salaa salaam ba lu ca bokkul du ca bokk mu ne xawma lu xew de waaye nii Naafi' di jànge bi ma ko càmbaree critiquer ko seet ko wëlbati ko lëmbët ko sunna yonent bi la salaa maanaam wér na am nañu firee nag baat boobu parce que bu ñu demee ci téere bi ci kanam rek dars bi di ñëw da ngay gis mu ñu koy firi ba demee ci saraa bi ñu werante ko ndax moom ki ko indi ibnu bari moom def caa dugal baatu duunal maqaar yi sunna kon day tekki ni <laughs> moom mooy sunna ci njàng njàngi ni yeneen njàngi ni du sunna duunal maqaar yi sunna waaw suraax yu wax yi ni maalik wax ji mu wax te sunna waqf bu rëy maanaam ponk bu rëy la ci mazhabu Malik mooy ni Naafi di jànge saxaaba ya nekkoon Medina ñoom Abu Hurayra ñoom Ubay ibnu Kaabin ñooña noona lañ daan jànge waa dëkk bi yépp di ko jànge Naafi ñoom dajale loolu tënk ko ni nii la ba dara bañ cee dugg lu ci bokkut dafa mel ni kenn ku amoon yitte rek tey fii ci réew mi ni xasida sàngam dama koo bëgg a topp nan lañ koy jànge di topp mag ñi ko fi jàng di koy jàng di ko topp di ko topp di ko topp ba dajaleel képp ku ma sa jàng xasida googu ci fatara bi bi fi sëñ Tuubaa nekkee bi mu fi jógee nga ne kon nii leen ko war a jànge kon loolu yow imaam nga ci référence nga ci keneen ku ñëw toxale ko ci yow loolu référence la waaye nag boo koy ci e, qiraatu nafi ibnu abi naafi ibnu abdurahman ibnu abi nuaym di asbuhaani yooyu tudd naa ko nekkoon na ku ragal yàlla nekkoon na ku yàlla may ijaaba nekkoon na moom naafi kuy jiite ci jumaay medina ja jiite na fa sittina sana ñii ñoo di ay sëriñam ci ñi la jànge xam ci ñi mu jànge dangay xame fi mu jële ndax xam-xamu alquran xam-xamu jokkalante la diw day jële ci diw diw jële ci diw diw jële ci diw ñu ngi jàng ñoom ñëpp ay taabion lañu parce que moom ñi di sëriñam féete ko kaw rek moom maaliga yam foofu képp ku ko féete kaw ba toll ci sëriñam rek da ngay bokk ci taabiuna na yi mooy ñi jële ca saxaaba ya saxaaba yi mooy ñi jëlee ci yonent bi salaa salaam mu ñetteelu kon génération gannaaw yonent bi salaa abu jaafar ku siiw la ci qiraat abu da abu abdullahi muslim ibn jundub al-huzali abu ruaym yazid ibn rumaan ñii ay taabi'un lañu yoo xam ni ñoom dañoo dajale xam-xamu saxaaba yi may tudd mooy ki ci jëkk mooy abu hurayra ci saxaaba ya ka ca topp abdullahi abdullah al maksumi ñoom muy ubay ibnu kaabin ndax ubay dafa amoon ijaaza ci yonent bi salaa salaam yonent bi da koo sampoon moo ko abdullah ibnu mas'ud ni ku bëgg di jànge ñi yàlla bëgg ni ko yàlla wàcce jànge ko ci ñaar ñi ba fi ubay bu fi yonent bi salaa salaam jógee dañ leen sampaat ñoom saxaaba dellu ci ñoom di jànge ci ñoom di wér digal na ko mu woo ubay jàng alquran ci ubay ba mu ko nettilee ubay ubay dafa jooy ni ko ndax yow ak yàlla da doon wax ba tudd ma man ni ma ñàkke solo allahu sammaani da doon wax yaag yàlla ba tudd ma ci mbir mi mu ni ko waaw mu jooy ndeysaan loolu mooy jël imaam naafi noonu la jële kon naafi am na certificat imam Malik ñi nga xam ni spécialité mooy natt lu wér lu wérul ci lislaam ba àgg ci wax ni qiraatu naafiin sunna muy benn ñaareel bi naafi Medina la nekk dajale ña nga xam ni ay taabiuuna lañu ya desoon ca dëkk ba di jàng mu dajale seeni njàngin taabiuuna yooyu xam nañu ni ñu jëlee ci saxaaba yi saxaaba yooyu sikki sàkk nekkul ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ jële kon bu fekkee euh, dégg nañu kon loolu mooy euh, taarixu silsilatu njàngum alxuraan ca Medina te Naafi jiite ko ñaari taalibeem yi kon moo des ñu jàngale ñu jàngal ñan ñooy ñaari taalibeem yooyu ñu dellusi tuuti ci Naafi lu tax ñu tudde ko mu ni ñu Shaatibi euh, di wax wa amal karimu sirri fi tiibi naafian tiib googu naafian da daan def buy jàngale boo ko boo toogee moom xetu parfum day gilli jóge ci moom ñëw ci ñay jàng luñ ko sori sori taalibeem ni ko xaaloon ni ko waaw yow sëriñ bi ndax dangaa am xeetu parfum bu nit ñi amul ba boo duggee génn xeeñ ko te yow rek lañ gis xeetu parfum googu di la xeeñ kenn ku koy xeeñ ci dëkk bi xamuñu ko te saa yoo toogee di jàng boo yëkkatee sa kàddu parfum bi xeeñ mu ne leen dama gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii maa yara naim ne mu ni ma ŋaaŋal nga ma mu jàng ci sama gémmiñ tifli ci bis booba ba tey xet googa mënta teqale koog moom man saa yu ma jàngee alxuraan ma yëg ko ñu may jàngal ñu yëg ko loolu ci xawaariq la xawaariq la xam nga tey léeg am na gaa ñoo xam booy tudd xawaariqu diw ñu commencé bëgg a xulóog yow nit yàlla yi jàng alxuraan yëpp ku ci ne da nga am jaar-jaar yoo xam bu ñu la ko nettalee ami xawaarik yu yéeme moom naa fex kon loolu mooy liggéeyam mu am ñaari taalibe damay njëkk a tudd kenn ki ki ñu gën taxam xam muy xaaloon ñëpp ñun loolu bokk na ci suñu problème mu njàng soo dee jàng alxuraan pour mokkal ko dem jàngi leneen foofu nga yem mën ngaa jàng sa riwaaya dapt ko dem sa yoon waaye soo bëggee nekk boroom xam-xam buy xóotal ci fànn qiraat nag da ngay jàng nag maqara bu ne ñaar ña ko jël topp ko maqara maqara ba mu ba àgg ci maqara yi léegi ñun xaaluun xamuñu ko bu baax waaye du ñun boo demee ci dëkk tukkulóor yi dañuy jàng xaaluun tukkulóor yi fii rek soriwul fuuta dañuy jàng xaaluun di ko mokkal di ci taxasus dañ koy boole ak warsh boo demee libi xaaluun la ñuy jàng am na dëkk yu bari jàng xaaluun ci dëkk sax yi nga xam ne dañuy jàng dañu nekk ci mazhabu Maalik xaalun mi ngi tudd isa ibnu meyna turu turu xaalun yu mi ngi jóge ci baatub baatub róomiya la mooy jëyit ñu ngi sëriñam moo ko tuddee xaaluun bi maanaa maanaam koo xam ni li ngay def dafa mat sëkk te rafet ndax njàngam mu rafet moom xaaluun nekk na Medina gannaaw sëriñam di fa jiite comme ni ko sëriñam Naafi nekke woon di jiite di jiite imaam Maalik waaye Qaabil nee na xóot ndax bari waaye juróom fukki at xoolal léegi ñun ni ñu yàkkamtee. am <laughs> te ju juróom fukki at waaw moom nee juróom fukki at kon ki am juróom fukki juróom fukki at ci sëriñ te ba muy jàng moom xanaa fekk na ko dëgër waaye juróom. di jàng sew sewi riwaaya sew sewi alxuraan sew sewi qiraat moom nag riwaayam tasul lool li tax tasut lool. lu dul maqaram moo ko yóbbu mooy bi bi fi sëriñam jógee dafa toog Medina génnul dafa toog Medina génnul ci xura ay cheikh rek yu bokk ndey ak baay ngay jëlandoo seen xam-xam bañ jëlee ci seeni way wayjur ki ci des mooy warsh mi ngi tudd Othman ibnu Saïd Othman ibnu Saïd turam yi ñu koy dàkkantele muy warsh mi ngi jóge bu weexaloon aw yaramam ba mu weex tàll weex de kon turu ndox mu dem ba wéy nag ba mëdd aw turam mais mi ngi tudd Othman ibnu Saïd al Misri Misra la dëkk Misra mooy buntu Afrique ci monde islamique lu bari lu ñëw ci ñun mazhabu Malik nii ibnu Qasim jóge Misra jaar Andalus jóge Maroc ñëw fii xalil misri la ñu ëpp tey ci ba ci bu yàggul sax léegi rek la yeneen dëkku araab yi commencé di kii waaye ba bu yàggul rek xosari misri la ibnu ibnu kusum misri la misra lu bari daan jaar kon euh, warsh dafa bokk ci ñooñu ñi nga xam ne dañoo leen jëm ci Malik ba pare toog nit ñi jóge ci gox yu wuute ci Afrique ñëw ci moom loolu moo ñu jotale ci maqra moo ñu jotale ci warsh kon euh, warsh moomu wax naa la turam wax naa la euh, euh, jawdaam njàngam àggoon na ci baax bi ko yàlla mayoon àggoon na ci bu ko sëriñam daan jàngloo pour mu tari ci sëriñam da daan nekk événement nit ñi dañu ñëw di ko seetaan si da daan jàng nit ñi di xëm xëm laa la wax ndax alxuraan yi fi mu àggoon kon ñaar ñooñu ñooy taalibe yi imaam Euh, naafia ñoo jële ci moom kon incha allahu taala dañuy daal di euh, yamale dars boobu fi foofu incha allah ba dars bii di ñëw ñu tàmbali nag téere bi jël ci ay bayit barkeeloo ko xam naa kem talaayal ñett ñeent ba juróom xam naa lu luñ ci luñ ci waxtu yu mën a may ñu jël ko incha allahu taala muy suñu dars bi di ñëw incha allahu taala